asalaamaaleykum mbokk yi tey la ajjuma fukki fan ak ñaar ci muharram muy weeru tam xarit di weer bi njëkk ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn ci gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juillet ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ñeent fukki fan ak ñaar ci weeru tamxarit dafa bokk ci li muy fàtt yi kon tey ci ajjuma ji rafetul ñaanu bis bi yow yàlla mii buurub jibril ak mikail tey buurub israfil maa ngi lay ñaan nga musal ma ci tàngooru sawara ak mbugulum bàmmeel allahumma rabba jabraila wa mikaila wa rabba israfila audu bika min xarri nnaari wa min adaabi alqabr allahumma rabba jabraila wa mikaila wa rabba israfila audu bika min xarri nnaari wa min adaabi alqabr xadiisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ngeen di solu wala ngeen di jàpp na ngeen tàmbalee ci seeni ndayjoor xaddis bi abu daawud génnee na ko qaala rasulullahi salallahu alayhi bi ayaamanikum axrajahu abu waxtu yi suba waxtaan dana tàbbi ak juróom